ba léegi maa ngi lay jàngal ba ñu añ fi ba pare ba tàkkusaan jàkka jaa ngi noonu di noddu tàkkusaan ma war a dem kër Adja Bambi nga téye ma fi ci je m'appelle waaye sa tuñ def ndànk rek mosuma jàng. waaw waaw waaw ba mën. lakkal baal sa tuñ yi articulé waxal. li wax je m'appelle. se m'appelle. bàyyi sa ji. ñu bëgg articuler articuler gu jub dañuy wut crayon wala bic loolu technique la di ko def nii ci seeni bëñ di lakk je suis tu es il est nous sommes vous êtes dégg ma day tax sa tuñ yi ak sa articulation mën a neex saxal bic bi. dama koy màtt. màtt ko. ah. je m'appelle waxal je m'appelle. je m'appelle. sa xàq gee daggul. yàbbil wàccu la man damaa war a dem kër Adja bi te lii du fi kii baal ba guddi fan laa ayee sax yow fegal nga biir kii aaye waaye dinaa jaar sa néeg ngoon wala ñu génn fii mu am fu ma la jàngal ma jox la quelque kii dégg nga dem kër Adja bi damay bañ mu rëcc sa biir bul woon kenn yaa ngi kii sax mu dégg nga. eh Modou Modou Mbaye kaay kaay kaay kaay kaay waaw wóore waay li yàlla rek ko mën abal ma abal ma abal ma waaw kaay waaw li di boobu toogal yëkkatil eh, eh sabar yi du sa sabari baay sama sabari baay la bu ma bàyyee fii sabari patrimoine la moo tax ma bàyyi ko fi bëgg ko ci am fulle ak fayda bu la waxee ngay patal say bët di ma ci tuñ tus xamoo ko li nga mën yaa ngi ci di jaajoo ko jaayuk saa su man te ndox du dem ci sa yaram salte nga waaw ak boobu waaw acca ana ñooxit wi na ñëw bombal waa acca acca acca waaw boobu bii boo ko fo boo ko fo ci samay sabar mat yow xanaa da nga de et sax kañ nga gëj a versé tons loolu yàggu bërkaati démb la bu tey yee tey xanaa ñeenti nga jox ma ñaata bërkaati démb téeméer téeméer nga may versé man ma yor ñaar ñu di yeeg ci biir kër gi dimbali ma moo du sabar yi demuñu yéen la demee waaw xam nga yow Modou Mbaye euh, dangay ñoqati mag waxloo ma ba ma taañaañal ba génn boîte vocale nga may soog a giifal soo may teg glace parce que yow sama tàng daf la neex man mënuma la bañ maag sa ndaye bokk ndey ak baay xaq nii boo koy def ak man kenn du ñu dégg comprendre nga li ma la wax mhm. hein voilà ci euh, mën naa wax ne say sabar la mais jaarale ko ci yoon hmm. ngay ñam may ñam d'accord nu muy demee. léegi da jël huit mille nga jox ma trois mille. Moodu. Moodu kii bu ma jëlee huit mille jox la trois mille onze mil lay nekk te dix mille nga ma jox waaye ma jël huit mille yi jox la te wala noonu. kon noonu la léegi xaar xaar ñu trouvé benn solution parce que yow dimbali la jot na daal. waa jox lay sëkkëre dimbali la nga tàkk benn yoon jógal euh, yow yaay jiite sabar ah waaw waaw waaw yëkkatil bi. waaye nag toos. waaw maa ngi jëm ba waaw waaw waaw yëkkatil bi defal ci mbagg góos bi. ne la jég. Modou. damay toll ni yow. Hmm. dama daan yanooy sabar fii dox deux kilomètres trois. bu ma demee ñaq yu wër ma ma toj. jamono boobu oto amul. <laughs> doxal. ma ne demal nga jàmm. ana say loolu. déedéet. mi ngi def ko fii bu naaj bi demee bay tàpp sa bët nga nga jam ko. dégg naa ah, ah. yàlla teg ci yoonu jàmm. ah man yàlla yàlla teg ci yoonu jàmm. ma dem. waaw léegi xoolal xottil rek. ah xottil nii. Eh. bu jàkka ji dégg nga. ah bul gestu. Moodu fooy tëggi bul wuyu da lay um. toujours jamais deux cent lii la neex. waaw ko ci kontoon si tamit. Moussa. yaay nag xam nga ni moom wax dëgg fa yàlla dafa neexul ba neexul rek rek rek rek ni jaay bu ma dee dee nga jox ma deux mille ma pass ci tax bu ma a def ba ba waaye nii nii bu ma yóbboon ni bii gi sinon doo yóbbu ñaari junni sabar yi duñ dem. demal tëggi. tëggi waay. naa la xamal leen da toto yaa samay 203 tonnes. waaw tey la neex sax tey la neex. tonton yaa samay 203. waaw demal rek. ah bi de mu tëb bu dee nii. foo dem génn am dafa tukki ñëpp a daw 18 ba léegi ma toog fi di ko kenn xamu fu mu nit da ngay say garde ah comme gannaaw mënoo bañ a toog kay dem nga xam ni géwél yu mel ni ñun dañuy jaar di ñëw xam nga wàcc fi tànta wala ab mag boo xam ne dina mën a gisee ak yow nga dem feneen te kenn xamul lan la léegi li nekk léegi man jaaxal na ma. ña daan sax bu bu ñu xëyee génn seen kër yi ñu teel ba minuit ñoo la am dugg mel ni moomuñu kër yi looloo moom ak eh. eh kaay taxawal ngay yollos yollos yi mel ni soccum njolloor mu waay cëppeelal yow muy ŋàlli di ŋàppeeku yow yow la kan Nafi Nafi fii nga dëkk waaw ci kër gi ku la jur Adja Bambi Thiam c'est pas vrai yow Adja Bambi la eh wàccal sa tànk yi ngay ngolli di wéeru yow am nga discipline yow xam nga ma man Bour Guéweul xamoo ma man très bien sama kër far bi laay dégg nga quelle sama kër bi laay jëm looy def sa kër far. dañuy ànd dem reer yi. da ngeen ànd dem reer yow da nga juum xam nga lu tax nga juum parce que da nga waroon ma wax ne damay dem sama kër far mu reeree ma yow dañ lay reeree yow naw leen seen bopp yéen jigéenu senegal da ngeen a am valeur jël seen yaram yépp exposé ko. dem ci góor jógal nar jot mbaa doo traversé buntu kër gi ay ca ci biti aywa solu jël xanaa lii mooy je me livre à toi chim